mbokk jullit yi di ci des ci ñaareel bi jullit bi xam luy feet feet mooy loo xam ne day dikk at mu jot nit ki di ko feetoo di ci bëgg di ci yaatal boppam ak njabootam loolu bu ñu jàpp lislaam da cee dellu ginnaaw déedéet lislaam wutal nañu ay feet yoo xam ne jullit ñi dañ cay bëgg di ca yaatu di ca yaatal seenu njaboot waaye yëmu ci rek loola waaye def leen ca sax dollil ab yool far loolu ci lislaam dong nga ko gis am ci sa àdduna am ci sa àllaaxira soo jàddul aw yoon boo ëppalul at mu jot lislaam sàkkal nañu ñaari feet ñu feetu tabaski ak feetu korite boo xam ni lislaam bu ca nekk dañuy génn ci ak jaamu yàlla gu mag suñ ko jeexale mu ni feetu leen suñ wooree ba koor gi jeex mu ni feetu leen suñu ajee ba aj ga mat mu ni feetu leen te ku ci nekk yàlla teg ci ay yool yoo xam ni nit ku du yam rek ci am ci àdduna waaye da ci amaale yoolu suñu borom ndax di jullit daraam du saarit am ay feet yoo xam ni ci ay bis la par semaine la lu melni bis bi ñu nekk bisu aljuma bis fet la ñu bee ko wax bis fet la su ñewé nit ki war ci yaatal bopam wacc ci muy bis bo xam da koy jël uniquement su mané nek muy bis jaamu yalla ndax fi nit ki di xëyee war fee jang alquranul karim war fe wajal bopam dem jakka ja fa war fa dalu ngon gi dugg waxtu jaamu yalla bo ak ñaan gi la fa yent bi wax loolu xat na xat goo xam ne ku ko man koo xam ne àdduna jattu la nga tànn bis boobee muy bis boo xam ne moom da xëy rek nekk ci sa bopp da nga màng yi mu baree baree baree bari bari boole ko muy feet goo xam ne danga ko feetoo kon laa sakk ni lislaam yemul rek ci def la jox la feet waaye def la cee tëbbu it ay ay may bis bu àjjuma bis bu mag la ci la yàlla bind aadama euh, ci la yàlla dugal aadama àjjana ci la ko fa génne it yàlla subhaanahu wa taala nee ci la bis bii ci la àdduna di tukki bis bu àjjuma kon bis la boo xam ne du bis bu ndaw te yàlla nee na ñuy jiitu woon ñëpp ci ay xeet nëbb naa leen bis bii yéen laa teral yéen waa lislaam bis bu àjjuma kon muy bis bu màgg boo xam ne jullit bi daf ko war a feetoo waaye nag lu may tuddiku déggin win am ci feet ak déggin win am ci cosaan ak aada moom buñ ñu ne laajee luy seen ciosan dañu daal di indi tabala wala ay xiin wala ay ndënd di tëgg di fecc ñu japp na nun suñu aada yépp ci tëgg ak fecc leen dédét tëgg ak fecc jotewul ak aada dara loolu folo la boo xam ni xeet yépp ko bokk ay aada yu baax ak ciosan ak mboor yu baax la ci am ci réew mi waaye dem nañ ba jàpp ne bu ñëw aada ak ciosan rek ngay xewal ñuy tëgg ñuy fecc ba tax na saa yu suñu nee feetit nun ñu baree bari déggin wiñ ci am rek muy tëgg ak fecc ak jaxasoo déedéet loolu du du loolu du feet du sunu aada sax nag donte nag tëgg ak fecc moom ci réew yëpp la am comme ni ma amee ci réew mi noonu la amee ci yeneen réew